asalaamaaleykum mbokk yi alxaaji mi ngi jëm ak Mame Ndokh TV mbokk yi nag mu ngi noonu information bu bees tàq boo xam léegi la wàcc euh, mooy Abdoulaye Diouf Sarr wax nañ ni euh, le président Macky Sall euh, jëlee na ko ci place bi nga xamante ni moom la nekkoon ci ministre de la santé mbokk yi mi ngi noonu ndax lan xew-xew bi nga xamante ni mooy xew fii ci Tivaouane bu Seydi Hadji Malick ci fukki xale ak benn yooyu nga xamante ni dañoo faatu démb ci lakk gi amoon ci hôpital Mame Abdoul Aziz Dabakh mbokk yi nag di information boo xamante ni léegi la wàcc mbokk yi Alxaaji Mbégi Diop ak Mame Ndokh TV euh, di décision bu président Macky Sall jëm ci ki nga xamante ni ministre de la santé mbokk yi nag mu ngi noonu gis ngeen ko euh, sànq aussi ñu ngi leen doon wax ni leen procureur de la république def na li nga xamante conférence de presse wax ni lépp loo xamante ni mooy ci mbiru hôpital bi li ci am dinañ ko topp de A à Z dinañ xam fee yëpp lan moo ko waral lépp loo xamante ni war na ci rek dinañ ci A à Z mbokk yi aussi gis ngeen ko démb li nga xamante ni mooy ministre de l'intérieur moom la wax euh, wax ko président de la république dégg nañ aussi sànq ci wéewu bay ñu ni samedi incha allah rabbi le président de la république Macky Sall dina ñëw fii Tivaouane def fi rendre visite euh, loolu yëpp ay euh, mbir la yoo xamante ni dégg nañ ko fii ci Tivaouane mbokk yi daal mu ngi noonu waaye daal di ci gën a daal ci li nga xamante ni mooy xibaar yi ñu taatandeeku mooy Abdoulaye Diouf Sarr jóge na ci bopp li nga xamante ni mooy ministre de la santé te li ko waral mooy xew-xew bi ngeen dégg démb mu am fii ci Tivaouane nga xamante ni àddina bépp faax tey ku ñëw Tivaouane bu Seydil Hadji Malick fële ci hôpital Mame Abdoul Aziz Dabakh France 24 RFI bépp organe fi ñëw waaye daal information bi leer mooy Abdoulaye Diouf Sarr na ci bopp ministre